asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi seen mbokk Xaadi Jaxate maa ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen balu di leen balaq di ñaan suñu boroom mu boole ñu baal eh, ci turu sëriñ Mam Mor mu Cheikh Mamadul Fadal Basiru mu sëriñ Abibu di jottali ndigalal cheikh Mouhamadul Muntaqa al xalifatul am di ñaan suñu borom yokk aw fanam ak wéram muy sàkku ci mbokki taalibe yi moo xam daaray alquran yi e, kër sëñ Tuuba yi ci biir réew mi ba ci bitim réew ak mboolem foo xam ne rek mbooloo mi ña nga fay dajee altine di fukki fan ak juróom-ñett ci euh, jumaada saani maamu koor 1442 tolloog le premier février 2021 euh, mu bëgg ñu yeesalaat ci ak tuubal suñu borom ak jéggalu ko kenn ku ci nekk lu mu mën ci alquran mu di ko jàng ba bañuy àgg ca jeexalitu weeru rajab wa ci jeexalu ba jeexaluk weeru rajab kon altine ji fukk juróom-ñett ci maamu koor wi ba rajab ndeyu koor wa di jeex diggante bi moo xam daara la moo xam kër sëñ Tuubaa la moo xam kenn ku nekk ci barab mbaa mbooloo mum doon te man ko luñ man ci alquran ñi di ko jàng jubluwu ci nag ñuy woote di dajeendoo ci benn barab di ko def waaye ñu bàyyi ko xel ku ca ne lu mu ca man rek mu di ko def te fas ca jaamu suñ borom te ñaan eh, mbas mii ne ci réew mi ak ci àddina bi yépp suñu borom dindi ko delloo si wér ak sago akuk tal ak jàmm ba nit ñi mën a jaamu yàlla kon sëriñ baa ngi ci soññee bu baax a baax a baax a baax muy doon altine le 18 février 2021 euh, ba ba ñuy àgg ca catal euh, weeru rajab wa su ko defee di nekk altine le 18 juma de saani muy maamu koor ci lañ koy tàmbali kon loolu gannaaw suba la incha allahu ba ba ñuy àgg ca catal weeru rajab ba kon sëriñ baa ngi ciy soññ ñëpp di ñaan ñu maase ci bàyyi ci xel di jiital tuubal suñu borom jéggalu ko ñaan jàmm ci réew mi ñaan ko mu teggi mbas mi jële ko ci àddina bépp te delloo si jàmm ju mat sëkk akuk tal ba nit ñi mën a jàmm seen borom waaleykum salaam wa rahmatullahi